alors léegi ñu dem ba Karim gagné tous ses procès ñu mener un combat politique de présence et de communication ak ñu bari sunu ay morom ñu ñëpp parti bi yëpp mais desuma ci gannaaw j'ai fait tout ce que je pouvais faire et j'ai accompagné les mouvements karimistes fu ñu mënti nekk bu ñu masaan woote man la ñuy gis du ñu gis keneen ma jàpp ko boole ci nag ma am un peu de j'ai quitté un peu le père pour ma rapprocher di fils de mon jeune frère donc dama xaw a bàyyi sama baay pour dendal ak suma rakk ñi nekk ak moom te jege ko dama leen di citer te nga xam ne dinañ wax ne Racine Kane Alioune Diop Mayoro Faye Lamine Thiam Tafsir Thioy Waré Sarr ñoo ñu nga xam ne ñoo doon wax ak moom te nekk ak moom xam nañ ne def naa lépp lu ma mën pour que mu arriver à son but parce que dafa doon nekk un événement important dans ma vie parce que c'est pas donné à n'importe qui et puis daf ko jaroon parce que Karim Wade du du ku ñuy sànni ci mbalitu tubaab kenn du ko fa for maintenant bi loolu amee doxalin bi di changer am na loo ci xam parce que wax naa la ko dafa am loo xam ne li mënuma ko bind fii yow xam nga ne wax naa ak moom plusieurs fois ne ko Karim mu ne ma ne ko fii du yoon bi bi may xeex pour la révision du procès xeexuñu ko ma ne leen mais pourquoi seen avocat mënu ko demander parce que Ismaïla Madior wax na ko Macky Sall ne daf koy amnistier mu bañ. ma dem ci télévision bi ne am na ci droit gëm naa tey ne man bu ma dee woon Karim Wade dina mën a défendre sama honneur parce que dafa am ñetti doom yu jigéen amul doom bu góor te doom yu nogay ak ndey juru leen leen mën a cristalliser seen dëkk ak seen deret ak seen sang yombul warul bàyyi turam yàqu maa ngi defee émission bi TFM astafurlah euh, Sen TV. avec li ngay li ngay rappelé nii da bëgg a justifier. non euh, euh, lan moo li yàqu ci se relation actuelle avec Karim Wade. non waxuma ne ba léegi waxuma ne dafa yàqu xaaral ba ma wax ko. man hmm. noo ma gën a yàkkamti plus pressé que la musique on danse mal waxaguma lool de wax leen fi ñu war a aw defuñu ko. dernier événement yi am xam nga yan la quand Moussa Moussa Moussa sorti pour s'appuyer sur une mauvaise un mauvais article une mauvaise lecture de cet article pour wax ne Karim de français la ba pare génne un passeport boo xam ne bi Karim Wade mu ngi domicilié en Angleterre donc doon jàng walla muy liggéey mu mënee combat boobu ak les juristes pénalistes yi nekk fii yëpp bu ma yeewoo ku nekk di ku nekk di ma woo ma wax leen ne na dem toppatoo ji affaire wu pour man lakk de renonciation parce que toujours dañuy wax demander na déedéet c'est un acte de renonciation dañ na parce que moom def na ko en 2019 ma jàpp loolu ma jàpp ne ñoom wax nañ ma ko Oumar Sarr wax na ma ko ma jàppane ne Jeune Afrique bind na ko mais kenn def ko toppatoo ba le 23 octobre deux mille vingt trois mosoo ko def. dañ la trompé. Euh, Maïmouna tu sais je suis dans une émission extrêmement importante parce que wax naa la damay harmoniser. Mm-hmm. wax naa la ko si commencement bi nee naa la li li déréglé laay réglé waat bu ma nekkee ci réglé waat doo ma ma ne ndax dañ la trompé. non attends dañ la ne sa a été fait en deux mille dix neuf en deux mille dix huit sax yow nga waxoon. nga ne vous apprenez en octobre deux mille vingt trois que ci lañ koy doog a def. ma ne Maïmouna man ak yow Maïmouna di euh, xale yi dox bul dof Jeune Afrique sax ay confrères ñoo bind ne Karim Wade def na loolu deux mille dix huit mais lu may soxlaati ñu wax ko ko mu ne def na ko waaye léegi nag deux mille dix neuf l'avis de recevabilité des candidatures ñu ne le député Omar Sarr nee tel à tel endroit nangam nangam Pire Place Samathaniaye à déposé pour le dossier de Karim du diw nee nangam de Ablaye Wade du nangam ne ko ne candidature yu baax na waaw loolu est-ce que man dinaa mën a trouver le contraire itam ñuy xeex pour sa candidature bi mu refusé amnistie bi. en réalité Karim Wade le 23 octobre ci li ñu wax lañuy déposé déposer renonciation à la nationalité française muy xaar ce qu'on appelle le décret, le décret. mooy pour wane amul benn allégeance avec la France te loolu xam nga kañ lañ ko xam bi Thierno Alassane Sall defee li mu def ba pare Maguette si est allé déposer un document au conseil constitutionnel du loolu la la demee de. waaw mhm. mais bi ñu soog a yëg loo yëgul doo ci xuloo doo ci xeex. ah maintenant le conseil constitutionnel parce que lien la ak loolu bi ñu koy indil dossier Karim Wade le décret bi wax ne amatul allégeance ak Sénégal. le Pas conseil constitutionnel ne s'était pas encore réuni pour se déterminer sur les candidatures mënuñu werante ndëgëm Doudou la wala du Doudou ñu jël ma yeew ma indi ma ne mu ngi nii Doudou Wade la nga ne du moom donc le conseil constitutionnel a fauté et gravement fauté